asalaamaaleykum mbokk internet Sénégal ak Kawtef euh, ñoo fi ñëwoon doxantu biir Turquie tey nag euh, ñu ñëw doon leen defal reportage ñu ngi nekk ak suñu benn nataangoor bu ñuy wax euh, pamata Matar mu nekk président de de l' association des Sénégalais de Turquie pamata nuyu nañ la ñu bàyyi nga nuyu suñu internet Sénégal yi. waaw maaleykum salaam fa ñu ngi lay nuyu bu baax Fatou Mbaye di nuyu waa Sénégal yëpp. Eh, di nuyu aussi sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii ci turki di nuyu sénégalais yëpp yi ñu wër ci àdduna bi yëpp rawatina fédération des sénégalais turki bi nga xam ne ñoom lañ jiital. Pape Matar euh, dañu bëggoon xam euh, sénégalais turki yi fii nan lañuy ñuy dundee. waaw bon comme ni Modou Modou yëpp di dundee ci àdduna bi euh, xëy liggéey yi wàcc ngoon ñibbi sa kër. waaw comme ñëpp ah mais xëy na am na tuuti différence ci diggante. yeneen dëkk yi dundin bi fa am ak fii ni mu xawee jafe tuuti xaw a métti tuuti ci e, dëkk yi nga xam ne Turquie bokk na ci dëkk yi nga xam ne dañuy wax ne ba léegi amuñ programme immigration parce que loolu moo tax mu xaw a différence ak yeneen dëkk yi nga xam ne xëy na ñiñ xamee àq ak e, ni ñuy doxaleeg nit ci ay droit ak yooyu fii moom xaw na fi manqué tuuti quoi waaw euh, différence boobu moom am na fi bu baax a baax ndax feebar faju fii jafe-jafe la aussi seen séjour yi nekkul séjour yoo xam ne comme séjour Europe yi la presque ay prolongation visa la nga ñëw fii am visa touriste wala nga am visa euh, business wala nga am visa commerce wala nga am visa foire li nga doon def pareegul nga ne xaaral ma dugal séjour pour def prolongation de tant que ngay li ngay lijjanti di pare daanaka ñoom séjour boobu la ñu mënoo ci liggéey mënoo ci def dara da nga fiy toog rek waaw. ok léegi yow jafe-jafe yooyu nga xamante ne moom la Sénégalais yi di dund fii te nga énuméré ko mhm. yéen yan solution ngeen ci da ngeen tant que président mhm. de l'association mhm. ñoom yow yan yan yan solution yow nga nga nga ngay préconiser pour ñoom waaw xam nga njëkk aussi euh, tukki moom ku ko def rek néew nga doole ndax ku jógee sa réew dem ci réewu jàmb euh, da nga fa fekk loo xam ne amul sa réew ndax euh, da nga fa fekk ñoo xam ne da ngeen a bokk benn bëgg-bëgg muy da ngeen a wut si yéen ñëpp ku ci nekk looy teralee sa njaboot ci biir loolu nag la leen suñu borom di boole seeni xool di ànd seeni ngeen di yëkkati yëkkatindoo di doo di dóorandoo mooy doon seen force. Euh, ñun liñ ci njëkk a def mooy comme lii ñu taxawaloon ndax lii ñu yor kilifa yi ñu fi jiitu ñoo ko yoroon muy fédération yor ko ay at oo ñu jox ñu ko te jàpp nañ ne am na bilan yu am solo yuñ ci def ndax biñ ciy jot boobu dëkk bi melul woon nii waaye sant yàlla am na changement yu baree bari nag yuñ ci def benn bi ñuy ñëw amuñu woon ay permis de séjour boobu fekkoon na président Macky Sall ñëw fii ñu waxoon ko ko ba mu d'accord ko ne dinaa dem wax ak président Erdogan ñu dem mu wax ak ñoom ñu juboo ci 1444 sénégalais bi loolu amee 1068 la ñu recensé woon ñun ñoo ñëpp ñu jox leen ñu demaat tuuti waxoon nañ aussi sénégalais yi ne bés bu ñu joxee lii dinañ fexe ba képp ku fi feebar dinañ fexe nga mën a faju fédération bi tey ku fi feebar te nga xam ne bokk nga ci fédération bi daan na la jël quarante pour cent yi nga xam ne moom nga war a fay te ku ne xam ne turc seen xaalis nu mu oyofee eh, tey nga joxe te carte bi li la ci doon boole cinquante lira la xam nga joxe cinquante lira am facture dix mille lira ñu fayal la ci presque six mille lira yi wala cinq mille lira yi defe naa ne ah, loolu rek li nga leen nit mën fexe nañ aussi tamit ba sénégalais bu fi ñëwoon dinañ la orienté ba nga am carte consulaire nit ñi xam ne bureau bi fii la. boo fi ñëwaan ñu defaral la carte consulaire sénégalais yu bëri am nañ carte consulaire ñi daan feebar aussi tamit daan nañ fexe di ànd ak ñoom di dem parce que système bi ñuy dugal nit ñi moo tax feebar faju fi cher parce que yow munoo résider am résidence ba pare ñu lay dugal touriste boo feebaree dem ci seen hôpital yi defe naa ne loolu moo taxoon mu mujjoon a métti pexe yëpp nag mënuñ ko wax parce que bon am na ay pexe yoo xam ne ñun doon nañ ko doxeek nit ñi nga xam ne ñi ngi fi woon di feebar bu ñu mënee dem ci hôpital yi ñu xool nan la ñuy def te bon lépp mënuñ koo wax daal waaye am na ci jàppandal yu bëri yoo xam ne def nañ ko ci suñu digganteeg sénégalais yi. mais loolu yëpp nga énuméré dama doon laajte ndax euh, ñi nga xamante ne ñoom ngeen recensé woon ñu jox leen këyit. Mhm. ñoom rek ñoo mën a bénéficié wu ci loolu voilà. waaw xam nga tey nag euh, état ak état bu ñu waxee ba pare dañ naan recensé leen bi ñu recensé. donte ci diggante bi am na ñoo xam ne yàqaat nañ mais bi ñu tëjee recensement yi ba jox leen. mais ñun dañuy mujj di engagé wu ci avocat boo xam ne dañuy dem wax ak moom bu ñu waxee ak moom ñu wër ci nit ñi fédération bi li mu ci mën a génn ñu génn ko ci leneen ñi ñu wër ko wala moom mu génne ki nga xam ne moom lañ jàpp ay nitam wax ne dañoo bëgg mu dem avocat sinon bu ci loolu amul état bi ambassade la ñuy contacter ambassade moo koy gérer wax ak Turquie bañ bàyyi la. waaw li ci loolu la ñuy léegi yéen comme Macky Sall daf fi ñëw souvent ngeen di wax ak moom seeni i jafe-jafe lu mel ni ci kayit mhm. est-ce que moom tam mënoo leen ko wax mu utal leen benn avocat boo xamante ne gouvernement bi moo koy jël en charge mhm. pour que ñu mën a taxaw les sénégalais yi nekk en loolu wax nañ ko ba tàyyi mais antu antuwul waaw wax nañ ko ba tàyyi jafe-jafe yi ñuy dund yëpp Macky Sall xam na ko man Macky Sall recevoir na ma quatre fois yoo xam ne am na ay sénégalais yu fa nekkoon vidéo yaa ngi nii sama téléphone buñ bu la neexee buñ paree mën naa la ko jox nga déglu bu baax liñ koy wax. Mhm. problème mu sénégalais yi lañ koy wax ba keroog ñu fay jógee. mais du am benn saafara. bo dina am parce que xam nga sénégalais yi turc dafa am benn spécialiste bu fa am mooy que ne ñoom dañ ko jàppee comme Europe wala comme yeneen dëkk yi or que ne dafa am lu des fii ba léegi loolu nag ñoom mënuñ ko comprendre. parce tey su fekkee ne da ngay soxla visa Europe yow da ngay dem demander rek vis Europe ñu jox la. xooluñ ci touriste ngay defi wala sax peut-être mun nga demander damay dem vacances mais turki dafa am ay modèlu visa parce que turki am na visa commerce visa touriste visa foire visa étudiant visa euh, festival façon visa bu ne def fi am mhm. léegi nag solo visa bi nga am loolu lañ lay laaj kayit yi nga xam ne moom mooy tax ñu jox la permis de séjour comme li ma la wax léegi permis de séjour bi nag newul séjour boo xam ne ay indéterminato la wala loo xam ne day du jeex wala ay dix ans non non léeg sax mën nga demander ñu jox la six mois te euh, directeur des immigrés bi ne fii li muy wax ci permis de séjour yi daf ciy wax lu leer ne sénégalais bu ñu jox wala ku mënti doon du sénégalais rek sax bu ñu ko yemale ci sénégalais yi. Mm-hmm. ñoom ku ñu jox seen permis de séjour bu fekkee ne visa touriste nga am ñu jox la ko un an joxaat la ko un an ça fait deux ans nee nañ dinañ xool ba xam ndax yow lan ngay dundee parce que touriste nga wax. mais kuy def touriste ci dëkk bëgg faa def deux ans lan lay dundee. jar na seetaan. mu na su fekkee ne tey dañu la jox nga ne foire nga fiy ñëw. léegi yow foire bi nga ñëwoon jeex na lan ngay toog ci dëkk bi da war a delluwaat sa dëkk. c'est-à-dire euh, ñun parfois dañuy topp ñun suñu bëgg-bëgg nag ba fàtte li nga xam ne moom mooy droit ci ñun aussi tamit walla li nga xam ne mooy yoon ci ñun. Mhm. loolu nag bon danga koy comprendre parce que habitude. doomu aadama la. Mhm. parce que doomu aadama moom li ko li bëgg rek lay jàpp na moom moo nekk yoon. mais léeg aussi ñu nit ñu wàcc yoon yi. Mhm. ah duñu wax ne dëgg yi turki yi ñu ngi ci yoon mais dëkk bu ne ak législation. Mhm. xam nga léeg sénégalais yi kaas fi sénégalais ñuy dipot wala ñu ñuy def li man du ma ànduma ci. ànduma ci tey ànduma ci ëllëg sénégalais yi ñuy ramas lii ànduma ci tey ànduma ci de mais ñun Sénégal gañ dëkk dañuy ramas. ay sénégalais dañ leen di ramas. Sénégal gi ñu dëkk dañ fay jàpp ay nit di leen déport boo xoolee diggante Guinée ak senegal lu tax neexul pourtant ñu bëri duñ la ko xamuñ ko parce que ki ñu waxoon ne dafa amee Ebola moom la Sénégal jël déport ko mu dem daanaka Condé ak ab ak Macky Sall looloo gën a indi seen problème ñaari président yooyu. te pourtant ay sénégalais lañ temps la rek ci ginnaaw gis naa Niger la xaw ma soo xooloon ci corniche bi daf daan bëri ay nit ñu fa nekk mais luñ mujj def avion lañ mujj taxawal. yéegal leen ci ñoom ñëpp delloowaat leen seen dëkk. Mm-hmm. kon dippot fépp lay am. contrôle fépp lay am. waaye nag duma wax ne Turquie li ñuy def du yoon mais li may wax mooy suñu état yi suñu relation yi nga xam ne am nañ ko war nañ ci mën a jàngaatee lan mooy waral ba diggante Sénégal ak turki ñu ciy dippot ay nit parce que am nañ relation yu baax président yi seq nañ jàmm mm-hmm. jours ñu waxante loo xam ne sénégalais bu fi nekk war na fi mën a am jàmm nag mais nag. seen législation moom man du ma ci dugg parce que ñoom ñoo xam ne ñuy doxee daal ci seen dëkk mais nag ñun ñi nga xam ne dañuy signer ak ñoom ak ay accord di am ay coopération ak ñoom ay relation bilatérale yoo xam ne wóor nañu ne am na gagnant gagnant bu ci am wala am na lu ñuy signer yoo xam ne état Sénégal mun nañ continuer signature yooyu nga xam ne signé woon nañ ko convention boobu mhm. respecté ko te mhm. Turquie mun nañ ko bañ a respecté mhm. loolu moom dama koy wax toujours état Sénégal parce que mënoo di jox ay doomu dëkk ay këyit turki yi nekk Sénégal aussi tamit nekk fa am seeni séjour di am jàmm di liggéey di dem ko ñëw sénégalais yi nekk fii ci turk mënuñu am jàmm loolu aussi tamit man comprendre mo ba léegi lan mooy waral loolu. le non respect bi ngay wax noonu. le mhm. non respect des accords. Mhm. dégg naa ko fi bu dul benn du ñaar. Mhm. mais tamit dafay dem ba nga xamante ne ñi nga xamante ne dañuy am këyit. ci li ma jot a dégg. ñoom poli. Ah. Euh, turki yi këyit biñ la jox yow permettre la nga liggéey ci. dañ la wax rek pour nga toog ci dëkk bi. kon yow mi nga xam ne am nga ko bu subaa mën nga dajeeg policier bu bon mm-hmm. bu la si jàppee danaan la yow am fu mu la bëggee collé motif mooy danaan la amoo droit liggéey ci pour lan nga ciy liggéey mm-hmm. cest à loolu bokk na ci jafe-jafe yu bëri yu ñuy indil nit ñi. ak loolu aussi ak ñi yor seen cantine yi il paraît que borom cargo yi il paraît que day am ay kayit yu ñuy soxla yoo xam ne duñ leen faciliter pour l'obtention de ces papiers là. waaw donc à tout moment mun nañu ñëw. tëj seen boutique yi. yeewu en tant que président des de l' association des yow lan moo ci sa taxawaay ak ban conseil nga leen di jox. ñun taxawaay biñ ci am benn rek lay doon parce que man ak keneen ak ñëpp ñoo yem gis nga sama cargo nii nga ma fekk man it dama ubbi nekk ci di liggéey mais turki ñooy nit ñoo xam ne daanaka duñ jox nit droit am à cent pour cent il faut ñu téye ci dara pour bu ëllëgee buñ la bëggee néewal doole foofu la ñuy jaar. Hmm. te man jàpp naa ne réew yëpp sax loolu lañ war a doxee. Euh, xëy na nag ñun nag boo comme li ñuy wax pays de la Teranga boo fa ñëwee ñu yaatal la ci lépp mais man damaa gëm ne réew mu nekk war naa mën a am loo xam ne da koy téye pour bu ëllëgee ki nga xam ne dafa ñëw ci réewam mu mën koo wan na ko fii mooy sa limite parce que tey ruusaat bi ñuy laaj nit ñi bu leen neexoon ñu joxe joxale ko Europe bu ñu la joxee këyit seen yoon nekkatul ci looy def ak foo nekk ak looy dugg cest diir yow fexeel ba bul yàq wala bul doxee ci doxin woo xam ne dëkk ba àndu ci mm-hmm. te jàpp naa ne fii sénégalais liggéey la ñuy def kon ñu ngi contribuer ci économie turque parce que comme lii ma la wax dëkk boo xam ne chaque samedi wala fi mu toll ni vendredi la sax démb vendredi daanaka sénégalais yi li ñuy yóbbu ci fret ci marchandise Sénégal te muy jaar ci Turkish Airlines kenn xamut lu mu toll ay milliards la at mi te loolu yëpp bu fekkoon dañoo toog croiser la suñu bras liggéeyuñ duñ ko mën mais kon ñu ngi contribuer ci économie turque bi bu baax loolu nag li koy waral état du ko xam c'est-à-dire état il faut mu formaliser ñu mais informel bi ñu nekk moo ñu gën a sonal te sénégalais yi ci bëri informel lu tax ñu ciy dugg mooy ragal ay frais ragal frais nag des fois moo ñuy dugal ci informel loolu nag dañuy sonal toujours ñun Sénégal parce que tamit boo for boo formelu ah daan la wala ñu wan la na la ñoo ëpp doole day yomb ci yow te turki daanaka liggéey bi ñuy liggéey lu ci ëpp liggéey informel la. Mm-hmm. Mm-hmm. kon daal eh, yéen am ngeen part de responsabilité ci li ngeen di jafe-jafe yi ngeen di fii. waaw am nañ ci am na ci xam nga tey part de responsabilité mënul passé eh, Turquie bi ñu la joxee visa dañ la jox ne la pour trois mois lañ la jox visa ne la quinze jours nga am droit toog. Mm-hmm. léegi ñoom ñu tegalaatal la ne la ci biir quinze jours yooyu soo ñëwee li ngay lijjanti sottiwul mën nga def sa prolongation visa. Mm-hmm. prolongation visa bi ñu ne la lii këyit bi ak këyit bi boo ko joxee mm-hmm. dinañ la jox. séjour booy def sa prolongation visa mais soo ko matalul kon xam nga matoo fi woon droit mais nag ñun loolu taxul ñu dem dañuy toog même bu ñuy nekk sans papier aussi dañuy toog di laaxatu di dama ko ñëpp kon responsabilité am na. yow bi nga xalaatee génn sa dëkk dem ci dëkk jàmbur rek nga xam ne responsabilité dal na la. parce que ñi koy def yëpp looloo tax ñu di ko def. d'accord mhm. léegi dama bëggoon a xam tamit jigéen ñi. Mhm. ndax ñoom ils sont elles sont plutôt présentes mhm. au niveau de l'association mhm. ndax ñoom nan la ñuy dundee fii tamit ak yéen noonu leen leen jàppale jigéen ñi parce que tamit dégg naa ne yaa ngi may wax plus de mille mhm. mais il paraît que ñi nga xam ne amuñu papier bëri nañ lool ba nu ñu koy waxatee nombre bi sax mënuma ko wax donc ñoom aussi tamit seen taxaw sa taxawaay yow lan la ci waaw xam nga jigéen ñi ba tey dañu am présidente boo xam ne dafa bokk ci biir fédération bi parce que fédération bi dafa fédéré ñëpp ah. ñoom it ñi ngi am présidente boo xam ne ñoom ñu ngi jokkoo di def seeni activité aussi ñoom it mm-hmm. mais dafa am foo xam ne bu fa tolloo du jafe-jafe ñëwee mën na bañ a épargner kenn ñëpp ciy dugg ndax ñoom li ñuy def waxuñ ne ma sàmba mii bu defee lii ñu xañ ko lii wala faatu mbay mais bu defee lee ñu xañ ko lee déedéet mm-hmm. ñoom dafa am charte bu ñuy doxee muy góor muy jigéen ku ko ci def wàcc nga ku ko ci deful it ñoom dañ liñ liñ prévoir na noonu la ñuy doxee noonu la ñuy doxee mm-hmm. métti na nag parce que aussi dëkk boo xam ne dama koy wax toujours nit ñi nag duñ ko dégg euh, diggante 2012 ak léegi dévaluation am na fi plus de quatre fois mais dëkk bu toll ni Turquie seen dévaluation mun na bañ a feeñ parce que dëkk boo xam ne yow 2012 bi ñu fi ñëw ñun cent lira moo nekkoon 1 million tey 30 et quelques mille lira di doon 1 million xam nga ne dëkk boobu pour nga amati fa xaalis yombatul. Mm-hmm. liggéey yi ni soxna yi daan liggéeyee liggéey yi métti na te fay bi demeetul noonu xaalis bi oyof na trop un lira trente cinq franc la Sénégal mm. un lira mm-hmm. kon loolu xam nga daanaka mooy loolu mais bon am lu bëri am lu barkeel da koo gën mm-hmm. man dama gëm ne waa Turki li ñuy liggéey barke moo ci nekk waaye du xaalis sax bu toll noonu ndax li ñuy am ni mu néewee ak liñ ciy def man jàpp naa ne barke rek moo ci nekk waaye du xaalis dama gis ne jafe-jafe yi nga ma wax yëpp ak sénégalais ni ñu jëlee Turquie mhm. loolu tam jaaxal na ma jaaxalu la non mais erreur bu mag la parce que liñ fi ëpp ñu fi ñëw man de léeg-léeg ma xuloo ceeg nit ndax bu ma waxee dama naan ko fii du destination xam nga nit mën na dugg ci dara ba pare dootu ci mën a génn xas na ci ba dugg mhm. waaye mag ñi dañ naan magum lëndëm moo la mën ki la jiitu ci lëndëm moo la mën a wax ni ngay toogee mais bon sénégalais yi nag ñëpp tukki lañ gis te aussi mënuma comprendre nga jël deux millions def ko ci turc wallaahi bala nga koo fay da nga wax lu set wecc te bëri na fi ñoo xam ne seeni waajur jaay nañ seen kër am na ñoo xam ne seeni waajur lañ yoroon ci or jaay nañ ko am na ñoo xam ne dem nañ ci banque yi leb seeni njaboot ñëw fi mais liñ leen indee kañ lañ koy récupérer tey ñaata nit ñoo xam ne biñ fi ñëwee defuñ fi sax un mois ñu tëj leen ci kaso yi ndax défaut de séjour kooku kañ lay fay xaalis boobu mais chaque jour ma wax ko léegi yow nga dem foire am fi nga dem fay ni deux million cinq cent mu indi la ba fii kañ nga koy liggéey bëri na fi ñoo xam ne duñ ñibbi parce que amuñ luñ fayee li leen fi indi woon amuñ luñ dolloowaat xaalis bi seen waajur góor góorgóorlu woon ba jox leen ko du ñàkk jom de mais dëkk bi moo metti dëkk bi moo toll foofu yombatul location ñun suñ kër yi ñu ngi doon fay ay mille cinq cent lire nga xëy rek ñu ne la quatre mille lire ngay fay soo bëggee tëdd boo bëggul nga génn loolu fu mu am amul fenn li ngay dundee wax naa ko bu keroog gars yi naan non président nan nga koy waxee ay mburu muñ yokk turki lu ci yoonu président mais ñun bu ñu fi nekkee di wut xaalis ñu yokk mburu mi ñun war waruñ cee gis suñ bopp ñun. Mm-hmm, mm-hmm. li ñuy sob tamaate nga xam ne ay soble gi yëpp noonu la fi yombee woon. Mm-hmm. léegi dafa seer fu mu toll nii moodu moodu ñun au temps xam nga lan la nit ñi daan teg par par semaine cinquante lire lañ daan dundee par semaine. est-ce que du est-ce que du li mu bëri sans papier di dund ci biir euh, dëkk bi euh, légal ñu joxewuñu euh, fay ñu impôt droit yi nga xamante ne moom la Turquie di laaj joxewuñ ko looloo tax ñu yokk bagage yi pour que yéen loo leen jënd mu feeñ ci ci li ngeen di utiliser. non loolu sax da nga koy nangul waaye man dama koy nangul des fois Turquie parce que nit ñu sànnee parce que boo xoolee ñoom population bi état bi ko sànni ci étranger yi. da nga leen di comprendre benn part léegi ñoom crise bi ñu nekk dañ koy bëgg a récupérer ci étranger yi. Hmm. loolu dañ koy comprendre mais nag état bi tamit waroon na sóor parce que ni fi ay doomu jàmbur nekkee noonu la ay doomu turki nekkee ci àll bi. Hmm. tey boo demee Sénégal ñu fa. Allemagne gi boo fa demee cinq millions turc ñoo fa ne nga dem Japon la même chose boo demee France ñii di jaay ay kebab ak yooyu yëpp ay turc lañ. Hmm. kon maanaam Union européenne nag organisation internationale yëpp a war a wax. parce que turc aussi tamit bépp convention boo xam ne day day day day day day day day day tëkkale wala day boole turc rectifié na yépp yoo xam ne am na ci àdduna bi pourquoi respecté wu ko cest à foofu la wax ji nekk loolu nag du man maa koy régler du yow du keneen c'est-à-dire loolu nag suñu état yi la mm-hmm. parce que aussi tamit mënoo rectifier bépp convention boo xam ne signé nga ko wala am nga ko accord ak ak dëkk te doo ko respecté ñu seetaan la bàyyi la ngay def nu la neex jàpp naa ne loolu état yëpp am nañ ci responsabilité. du yoon du yoon dëgg la. Mhm. du yoon euh, bu ñu paree ci jafe-jafe Sénégal yi nga xamante ne ñoo nekk Turquie. Mhm. am nañ ci suñu benn sœur boo xam ne semaine bële passé nekk étudiante doon am fu muy daanee dooleem. Mhm. ñu dégg benn affaire bu doy waar boo xam ne arrivé na ko. mooy viole bi nga xamante ne euh, subir na ko ak euh, ñaari turc. ñu bëggoon a xam moom tamit noo leen ko taxawoo. waaw comme ni ñuy taxawoo ñëpp rek. parce que ñun moom saa bu ñu yëgee ne sénégalais am na jafe-jafe ñun ñoo am jafe-jafe parce que ñun kenn mënuñoo tàqale euh, man affaire bi bi ma koy yëg maa ngi koy yëg ci jour euh, ci bi ma xëyee parce que moom vendredi la affaire bi am vers vingt et une heures comme ça léegi ñoom bi ñu demee hopital ñoom euh, hôpital xool ko mhm. consulter ko wax leen na leen effectivement dañ ko violer ñu defal ko certificat médical ak yëpp ne ko na dem police comme dafa sonnoon mu dem ñibbi këram bi mu xëyee man ci guddi gi woon nañ ma fekk tëdd naa juro dama xawoon na tawat tuuti ma tëdd bi ma xëyee laa gis seen appel comme man li may def sax jour bu ma xëyee su ma gisee sama téléphone message wala appel dama ma leen woowee ma laaj leen lu xew ñu ne ma dafa am sénégalaise boo xam ne dañ ko violé démb moo taxoon ñu di la woo ma ne leen ok fu ngeen nekk ñu wax ma ko ma ne leen ma dajeeg ñoom daal di ñëw laaj leen certificat médical bi ma xool ko effectivement ñu def si ne comme dañ ko violé léegi yëpp maa leen léegi nañ leen dem police comme ci suuf déposition bi def nañ ci police médecin bi ko ki wax na ko demal police mhm. ñu ànd dem police boobu 9 heures bi ñu demee police yi xool ko nañu léegi il faut ngeen xaar ñu indil leen tarjumaan koo xam ne dafay traduire li ngeen di wax ak yooyu ma ne ko ok. traducteur waaw mu dal di toog mu woo commissaire bi aussi wax ko ko. Mhm. commissaire bi na ko ok bi traducteur bi ñëwee mu posé ko donte ndaw si dégg na turc ak yëpp sax am na ñu ci xam. Mhm. mais xëy na ñoom seen luwaan noonu lay doxee. Mhm. bi ñu ñëwee mu déglu ko ci saa si ki nekkoon en garde woo commissaire wax ko ko. effectivement même PV bi li ñu ci def loolu la. commissaire bi na maa ngi ñëw. commissaire bi ñëw moom it ànd ak ab équipe bu ñëwee ñu dégluwaat ko wax ñu tàppee ay dossier ne ko ndax mën ngaa ñoo yóbbu fan affaire bi amee woon mu ne effectivement ñu ànd ak moom dem ci fabrique bi buñ demee fekk fa yi jàpp ko bi ñu leen jàppee ñu dellu siwaat ci police bi euh, ñu dégluwaat ko ñooñu daal di dem commissaire bi aussi dem biñ dem biñ man ma woo ambassadeur bi expliquer ko ne ko am na fi xale boo xam ne dañ ko violé démb Euh, ci anam yi la nekk ñi ngi ci hôpital bi dem nañ police ak yooyu yëpp def nañ ko mën a ma ok euh, fu mu toll rek naa ko yëgaat luñ ciy def. léegi euh, bi ngeen demee police bi bi ñu jëlijee ñaan yi nga xamante ne ñoom ñoo ko violé. Mhm. dañ leen bàyyiwaat ñu dem wala dañ leen jàpp dañ leen téye. non dañ leen jàpp déggoo bi ñu dem jàpp leen dañ leen a dem jàpp. ok bon bi ñu leen jàppee nag indi waatuñ leen ñun ci police bi ñu nekk. Mhm. ñoom jàpp nañ leen parce que après bi bi ñu ko kiiyee ba pare. commissaire bi bi mu waxee pare daf ne procureur ordonné ne pour ñu dem jàppi leen. Mhm. ñoom ñu dem jàpp leen. Mhm. ñun ñu dellu si waat ci police mais ñoom ñëwuñ. ñoom ñëwuñ parce que bi ñuy dem ñaari oto lañ yoroon. Mhm. bon ñoom ñëwaatuñ ci police bi ñun ñu dellu si waat ci police bi. ñu fa ñuy amaat ay yeneen enquêteurs yu ñëw. dégluwaat ko wax ne léegi ñun dañu bëggoon yére yim sol moom nañu ko jox. ñu dem utal ko ay yére mu simmi yére yooyu jox leen ko ñoom ñu dem. bi ñuy demaat ba ay côté 19 heures am yeneen enquêteurs yu fa ñëwaat bi ñu fa ñëwee wax daal di tàppe ay dossier ne ko léegi il faut ñu demaat ci beneen hôpital boo xam ne. Euh, confirmation. waaw foog ñu defaat beneen prélèvement. Euh, benn hôpital bu nekk Atletico bi nekk Zeytinburnu su suma juuma. Mhm. fa la nekkoon. ñu ne ñu ne ma léegi yow demal ci police bi nekk fii Fatick nga xaar ñu ñun ñu ànd ak moom. Mhm. bon ma leen ok ñoom ñu dem bi ñu demee man ma toog fa toog fa toog fa toog fa ba ay côté dix heures onze heures ñëwuñ ma woowaat leen téléphone ñu ne ma non dañoo dellu si waat ñoom ci police bi ma jugee waat fii demaat ci police bi fekk leen fa mhm. bi ma fa ñëwee net ñoom ñu ne ñu ngi doog a pare parce que dafa amoon ay enquêtes yu doon defaat ci moom yooyu ne ma léegi yow mën nga dellu xaar ñu fa mhm. bi ma fay delluwaat presque ay minuit minuit une heure ñu demaat ci police bi xaar leen mhm. bi ñuy ñoom bi ñu bi ñu bi ñu diggante dix heures ba onze heures boobu bi ma dellu si waatee ñoom bi ma leen fekkee ñu enquête ba pare sax laaj naa leen PV yooyu ñu bañ maa leen léegi ma foto ko ñu ne ma noonoo tey PV yu njëkk yi jox nañ ñu ko mhm. diggante midi bi diggante 9h ba midi PV yooyu jox nañ ma ko. boobu bi ñuy posé question yaa ngi yéen ñu ngi waaw ñu man sax am na ci boo xam dañ naan ma génnal mhm. na xale bu jigéen bi rek la ñuy waxal am na si yoo xam dañ naan ma génnal xale bu bi rek mooy ñëw. mais bu jigéen bi day nekk ak day nekk ak traducteur bi. Mhm. buñ paree dinañ ko jox document ne ko signé ba der de am na benn moment sax nee naa ko bul signé. traducteur bi sénégalais lay nekk. non non turc la turc lay mais français day wax français. Mm. bon léegi ñu loolu amee bi ñu demee ba ay mm, euh, minuit une bi bi ñu ñuy waxaat loolu ma ne leen léegi PV yi ngeen mujjee def est-ce que mën nañ ci jot ñu ne ma noonu ma ne naa ko photo ñu ne noonu ma ne leen ok ñu ñëw xaar leen fii ay minuit ñu indi xale bi. Mm-hmm. biñ ko indee ñu dugg ñoom it defaat ay enquête ak yëpp ci biir. ñu dem gis commissaire bi ne ko kii moom la ñuy xaar commissaire bi ne noonu dem leen ngeen ñibbi parce que ñoom bi ñu demee ci 19h bi ma delluwaatee ci police bi ñoom bi ñu ñëwaatee rek automatiquement li ñu indi mooy kii amul droit sax jugee ci université ba mu nekk ñëw fii benn ñu demaat ba mu yàgg ñu ne moom amul droit liggéey parce que séjour étudiant la police bi bi ma ko woowee ma ne ko ñii de ñu ngi ciy rax ci bokkut mhm. parce viol lañ doon wax mais léegi ñoom ñu ngi ciy dugal ay amul droit jugee ca dëkk ba ñëw amul droit liggéey te xam naa Turquie xale bi dañ koy tëj mu ma duñ ko téye dinañ ko bàyyi ma ne ko wallaay dañ koy téye ah bon li ma doon wax moom mujj am bi ñu demee man boo insister ci loolu moom mu ne ma non duñ ko tëj maa ngi nii di wax ak ministre ministre bi maa ngi wax ak ñii maa ma ne ko ok baax na biñ demee fële. commissaire bi def nañu dem leen ngeen ñibbi kii fii lay dañ koy yóbbu fëndëk zaadi ci benn centre de tention fa lay fanaani ji kon hmm. dèjà xam nga li ñu doon wax am na te boobu hmm. une heure du matin ma woo ko jotuma ko bon commissaire bi nañu dem leen xaw nañ jàppanteeg ñoom sax tuuti parce que dañ ne woon ñun duñ ñibbi parce que kii lii ñu koy def néewal doole la tooñ la tëj la hmm. amul fenn bon ñu daal di bàyyi ñun biñ jógee foofu bañ fay jógee presque ay deux heures matin comme moom mi ngi woon ci biir ñoom ñuy xaar benn autopolis ba autopolis bi ñëw fa lañ taxaw ba autopolis bi ñëw ba yàpp ko ba départ ñun ñuy doog a dem boobu il fase deux heures du matin man bi ma xëyaatee comme waxoon nañ ma centre bi ñu koy yóbbu ma dem fajar gi dem fa mm-hmm. bi ma demee euh, ñoom ñu ne ma doo ko gis mais dañ koy yóbbu yóbbuwaat Sirivli benn prison boo xam ne quatre heures de temps la ak Istanbul kon sonn na waaw ma ne mais pour lan loolu ñu ne ma non yow duñ la ci wax dara leen ok ma woo ambassadeur bi ni ko ñii ñu ngi koy jëlaatee fii di ko yóbbuwaat sirif li nee nañ te sirif li prison la boo xam ne ñaari yi buñ bu fay yóbbu rek dañ lay tëj te buñ ñu la fa tëjee it dañ lay delloowaat sa dëkk kon ñun xam nañ turki yu bu baax bu ngeen ci gaawul kii dinañ ko yóbbu senegal mu ne ma noo am na équipe bu ma yabal ñi ngi ñëw ma ne ko ok man ci yoon bi bi may dem la ma envoyé message na ma ministre bi wax na ne dinañ ko bàyyi mhm. mais ñoom ñu ngi ci yoon bi pour yóbbu ko Sirivli mhm. ma ne ko ok ñun bi ñu àggee Sirivli ne ci lañu leen fekk ci bunt bi ñu taxaw ak waa ambassade yi ñu jox ñu ko mhm. foofu la ak ci la ci senegal doo ko jotee ambassade bi jot ci ñu ne ñoom dañuy dem boobu ay dix-huit jot na dañuy dem am nañ avocat ñu ko jëlal dañuy dem gisi avocat bi ma leen ok léegi man comme dama sonnoon man ne loolu damay ñibbi sama kër noppalu ji léegi yéen dem leen ngeen jéem a xool ak avocat bi ñun man bu ci kanamee lu ma ci war a xiyaat naa leen laaj. Mhm. bon bi ma toogaatee ba ay vingt une heures ma laaj leen ñoom ñu ne ba léegi ñi ngi ak avocat bi muy koy laaj ak yooyu bon buñ xëyee sax avocat bi nee nañu euh, day ànd ak moom dem hôpital moom def ay prélèvement boppam ak aussi tamit day da koy yóbbu maison justice directement fa lay defee plant ak yooyu. Mhm. waaw leen ok mais man de toutes les façons ñaar laa leen di wax. na ngeen bàyyi xel ci PV yi nga xam ne moo mujj mhm. jotu leen ci mhm. ndax ëllëg parce naar yi dafa am ñaar yu ñu doon wax mhm. viol lañ doon wax ñu dem ba mu yàgg ñuy teg viol di wax waxi kuy liggéeya ku amul droit jugee fam nekk kon ñoom am na leneen lu ñuy rax insister leen nag ci jot PV yi te man dama gëm ne PV yooyu noonu moo doon yóbbu xale bi Sénégal PV yooyu noonu moo tax xale bi fanaan ci kaso bi parce que mënuñ la violer ñëpp nangu ne certificat bi ñu ci def viol la ñu xam ne viol la ba pare ñu lay kalewaat leneen loo xam ne moom moo ci bokkul waaw man moom loolu insisté naa ci ak ñoom bon après nag comme état dugg na ci te ñoom ñun li ñuy def ñoom lañ ko doon defal bu buñ ko jëlee ñun dañu ciy wàcc waaye nag dañ koy suivre d'après parce que duñ ko bàyyi waaw ndax moom bu ci ñaari état yi nekkee nag moom ñun am nañ droit nag toog ci ginnaaw nag fuñ ci toll ñu leen di laaj moo tax keroog euh, hôtel la fanaan bi mu xëyee aussi tamit ànd ak ñoom def loolu ñoom it ñu defal avocat bi procuration boo xam ne jox nañ ko euh, yoon pour moom mu topp dossier bi mais ñun aussi tamit ñu ngi déglu boobu ba léegi bëgg nañ xam xale bi fan la euh, ñiñ jàpp fan lañ mujjee procès bi kañ la ak dossier yi ñu leen wax ne PV yu mujj yii nii ba léegi jotaguñ ci PV yooyu lan moo ci nekk parce que tey su fekkee ne dañoo dem procès ñoom turki yi ñu def ci PV yi na xale bi daa nangoo waa gars yi du mujj fenn su fekkee ne dañ cee def na da leen a jaay fan lay mujj moo tax loolu maa ngi koy lancé appel fépp di ko fa wax ñun fa lañ nekkoon du début ba ca lendemain ba dara umpuñu ci waxuñ ngir bëgg a wax mais dañuy wax pour dimbale suñu sœur parce que turki yi xam nañ leen bu baax a baax tàpp dossier yi ñu mujjee tàppe te nanguwuñ ñu jot ko yaa quelque chose nañ leeral loolu man nag wax rek laa mën te amoon na fu ma ci yem li ñuy bañ nag mooy àgg ci projet. Mhm. ñoom lañ cee wax wuute naag li ci am bu boobaa it réeroo dong mooy am. léegi man dama bëggoon a xam mhm. diggante bi ñu leen joxee euh, la fille. bi mhm. ñu leen joxee xale bi. ndax yéen posé ngeen ko question pour xam moom la lañ ko doon laaj ci biir ak moom lan la wax. waaw non moom dañ doo doon laaj rek faw nga xamee ñii lan ngeen seq mu expliqué leen. yéen lo bi mu leen expliquer yéen mm-hmm. bi mu bi mu ñëwaatee ci seeni loxo. Mm-hmm. est-ce que posé ngeen ko ay questions. waaw bien sûr laaj nañ ko lan lañ la doon wax mu wax ñu ne ñu lii lañ ko doon wax. d'accord waaw lii lañ ko doon laaj. Euh, ci léegi nag moom ndax moom fi mu toll yóbbu ngeen ko hôtel. Mm-hmm. ndax am na suivi psychologique. koo xamante ne peut-être ndax elle ne pas traumatisée nan lay dundee situation bi en fait après euh, biñ ko dencee. ak jafe yi mu am ci journée violente bi. waaw boobu moom man moom jàppoon naa ne man moom gisoon naa ko sonnoon na trop mooy samedi bi ba dimanche sonn na mais après dimanche ci guddi la fi jugewaat euh, dem Ankara ñoom ñu jël ko ne dañ koy yóbbu hôpital suivre ko psychologiquement ak euh, santé mag yooyu yëpp ba léegi nii mi ngi hôpital. mais amaatoo ci benn nouvelle. chaque jour ñu déggante. ah yéen a bon voix am ni mu doon waxee ak man ak léegi ni muy waxee je vois que ne ça quoi. par ak bi muy doog dem ni mu daan waxee yooyu ak léegi ni ma ni muy waxee moom. Mm-hmm. Ah, alhamdulilah quoi. léegi bëggoon naa xam ndax c'est la première fois ngeen am jafe-jafe yu mel nii wala c'est récurrent. bon bu bu nit ñemee wax nii moom ñu ngi koy doog a am moom. koy doog a moom lu nit di waxee lu toll nii moom. Mm-hmm. mi ngi fiy doog am wala boog ñu ngi koy doog a yëg ñun boog. léegi lan ngay wax gouvernement bi ñi nga xamante ne ñoo ŋànk euh, les sénégalais de l'extérieur. waaw nga xam nga tey. Euh, man damay damay faral di ma dama koy wax fan yii yëpp maanaam kilifa war na weesu su problème amee sa njaboot seen xel jéggi la ku kilifa gu ne war ngaa daw loolu te man dama jàpp ne ambassadeur bi moo nekk fii kilifa mais saa bu problème amee rek dañuy yuuxu dakaar loolu nag war naa jeex parce que yow bu ñu la joxee lépp lu war a mën a tax nga war a mën a régler wala nga war a mën a lijjanti Sénégalais yi te bu ñu amee problème jéggi la dem Dakar jàpp ma ne lu jaadu te il a que ñu yuuxu dakaar dégg ko ñoom ñu doog a intervenir parce que ku ñuy wax yow ne la violé nañ nit 9 ci suba déplacé woo ba dimanche ci suba te moom ba léegi déplacé wul ñëw mais dafa yónnee teg ci man jàpp ma ne loolu lu jaadu la amuñu kenn problème nag joteewuñu kenn ndax dañoo jàpp na ñun ñii nii ay victimes lañ ëllëg suñuy sœur it ay victimes lañ ëllëg. te li ñuy wax naan lu ne këtt lu ne jonn moo koy faj li nga mën a régler tey régler ko tey parce que chaque occasion rek am na lu mën a regle moo tax ñuy wax mais waxuñ pour waxal kenn man ambassadeur kenn ëpp ma ak moom ay relation yu baax. taxawaayam des na daal. bu baax a baax parce que man man déggoo li ma la man bi ma woowee bi ma xëyee gis sama appel sama téléphone seen appel dama leen a woo mhm. ñu wax ma ma ñëw ànd ak ñoom bàyyi li ma doon def. simple fédéra président fédération. kon moom mi ambassadeur bi ma ko wooyee lan la war a def. day daw moom moo ñu yilif ñun ñëpp. Mhm. sa à foofu la affaire bi ne beneen bi ma gis ne affaire viol bi waa Sénégal dafa mel ni xamuñ li xew. parce que man ministre de la femme fan la ne mus dégguma ci ba léegi mu yëy yàbbi ci mais ki yor éducation supérieure anama mhm. l'enseignement supérieur dégguma leen ñu wax ci et pourtant bari ki démb am na xale bu jigéen bu réer France jigéen day jàngi réer waa ki réer ak ki ñu violé kan moo ci gën a nekk danger ki réer ñu xam ne dañ ko médiatiser àdduna bi yëpp ku ne di ko wër naan xale bu jigéen bi dafa réer France kenn gisu ko mais mag sax mën na réer dem toog fenn mais kii dañ ko violé viol boo xam ne c'est la première fois muy doog a xam góor mu métti trop mais kon état Sénégal relation bu mu war a mën a am ak lu mu rafet rafet rafet war naa mën a sóor njabootam gi nga xam ne ñoom ñoo fi ne di dund ak ñoom parce que. Mhm. turc tey relation bu mu mën a am ak Sénégal lu mu neex neex ñun joué nañ ci. Mhm. parce que am na yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi fii li tax mënuñoo am relation bu rafetee nii ak Turquie mais buñ xoolee ñi fi dëkk duñ leen ko jox parce que ñun dañuy jàgg topp naan ñu yéen ay jullit ngeen ñun ñu baax ngeen amul leen benn problème liggéey wàcc moom ngeen di def kon yeneen xeet yi nañ ci rax leneen kon nag ñun am nañ ci rôle bu am solo boo xam ne ñu ngi ko ci joué nit nag doo am or ba pare di ko tëkkaleeg xeer parce que ñun aussi tamit lu métti métti am na rôle bu rôle bu rëy buñ ciy joué ci diggante ñaari dëkk yi kon loolu war nañ ñu koy sóoraale ah di wax aussi tamit sénégalais yi fi nekk nañ muñ parce que aussi boo génnee rek néew nga doole dëkk jàmbur tamit munoo faa nekk comportement bu la neex nga bëgg koo doxee ñun xam nañ bu baax li am Sénégal mën na bañ a am fii. sa dëkk bu nekk mën nga libre si sa législation yow yaa xam ni nga bëgg sa réew doxee ak charte yi nga xam ne moom lay doxee kenn mënula koo teggin ñëpp nangu nañ ko parce que tey léeg-léeg kaas fii ñu ngi nii jàpp ay sénégalais ba pare duñ leen def lii duñ leen def laa du yoon du kii mais Sénégal bu fekkee ne ñun dañ ciy kaas bu ñu ko kaas ak turki ñu it nañ fexe ba turki ñu jàpp Sénégal na ko Sénégal def li ci war ñun état Sénégal lañ war a waxal parce que tey man di ma jàpp mooy suñ fekkee ne ñun dañoo jàpp ne suñu réewum doxul li mu war a doxee wala deful li mu war a def ñun nañ moytu parce que aussi tamit mieux ba provenir que guérir mais aussi tamit mënoo xëy di yeewu di def loo xam ne tamit teguwul fenn dëkk bii aussi ñun ñu nekk nii bëri na ay njuumte yoo xam ne ay sénégalais ñu ngi ko fiy def parce que dëkk bii nag dañ ñu nawoon respecté ñu bu njëkk ba boo génnaan bu la police téye boo ne ko sénégalais nga dalay bàyyi ñun ñii yàgg nañ fi bëri na. ay nit yu ñu daan jàpp sax ci yeneen xeet yi dañ doon fexe ne ay sénégalais lañ police da daan génn di xool fan la sénégalais ne ñëw na la kaay dañ laa soxla nga ànd ak yoom ci ba ci police bi ñu ne la waxal mu wax bu dee sénégalais la ñu bàyyi ko bu dee du sénégalais ñu ne la pour lan nga naan sénégalais nga da ngay fen daal di lay téye kon amoon nañ fi étiquette bu rafet mm-hmm. amoon nañ fi woy bu rafet nit nag bu lay yabee ci sa doxalin la mm-hmm. soo demee ba li nga amoon wala cër bi mu amoon ci yow mu teggeeku mm-hmm. war nañoo mën a toogaat ñu nit xoolaat suñu bopp ak suñu doxalin bu baax a baax bëri na ay njuumte yu bëri yoo xam ne ñun ñi dañ koy def donte turki yi nag ñoom moom kenn yaakaaruma ci àdduna nit mun na leen a soppi ci ni ñuy doxee. parce que tey li may wax man je sais bien que ne ambassadeur loolu foofu mu toog doon wax naan nii day demee kamiy waxal loolu la koy wax mais ki nga fekk mu nekk sur le terrain faalewul kenn. turki da ngay ñëw tey ñu ne la sama moral moom bësul sama tey nekkuma bañal na loo xam ne bu subaa bu xelam nangoo mu mu nangul la ko. kooku nag du état kooku nit ki la te turki noonu la ñuy doxee loolu nag dana jar aussi tamit ñun ñuy jéem a gën a moytu xam ne li ñu fi indi ut xaalis la liggéey wàcc dem tëdd sa kër parce que bëri na fi boo yoo xam ne bu ñu doon wax li ñuy def lépp àdduna tukki kon loolu aussi tamit ñun dañ koo war a sóoraale war koo bàyyi ay jullit lañ ay gor lañ luñ nanguwut a def ci suñu kanamu yaay yeeg suñu kanamu sœur yële fa la ca dëkk ba génn it warul tax ñu bañ koo def ndax léeg nga dégg nit ñu ne la visa bi la fi indi moo mu fi indi moomoo ma moomu ma la d'accord mais ñun dañoo am culture boo xam ne dañ ñu ko yaree ba pare tukki waruñu koo changer tukki waruñoo soppi ci lenn lu dul mu soppi ñu ci ñu am xaalis waaye soppi ñu ci yeneen jikko yoo xam ne jikkoowuñ ko man jàpp ma ne loolu tamit lu rafet la te bëri na fi ñoo xam ne wallaahi biñ fi ñëwee soppeeku nañ am na changement yu bëri yu ne ci ñoom ñu ngi masawu ñëpp nag di leen sant yéen waa Sénégal aussi. ne xam naa ne bon Sénégal dafa fa xew métti na ñëpp waaye te aussi tamit xam nga euh, viol dafa métti daal waaw dafa métti mais na ci sénégalais yi aussi tamit demee xel ndax euh, loo fajee lu la lu la naqari nga fajee ko mer. Mhm. dana da nga ci mujj am lu la naqari nañ ko fajee xel te defe naa ne yoon bii ñu nekk ñun ñëpp yàlla dinañu dimbale ba dinañ ci am ñu ci bëgg incha allah. dëgg la dëgg la ñoo ngi compatir sax ak suñu sœur boobu nga xamante ne moom la métit bi daal euh, te je pense que ni xam naa ne message bi ministère de ministre de la femme ak euh, de l'enseignement supérieur dinañ ko dégg mm-hmm. bon di di la sant di la gërëm yow tamit mais aussi tam bëgg naa comme dugg nañ ci jafe-jafe yeeg mm-hmm. yooyu noonu bëgg naa ñu dugg tuuti ci politique bi mm-hmm. Sénégal nan ngeen koy dundee fii yéen euh, les les Sénégalais de Turquie bo am na fi nekk xam nga am na ay parti yu fi nekk am na Pastef APR am na fi mais bon man bugguma di dugg ci politique gu jàmbur wala ci vie jàmbur. Mhm. ku nekk am nga droit politique ku nekk am nga droit far. Mhm. mais daal stabiliser stabili euh, nu ñu koy waxatee sax stabiliser te réew moom dafa am solo te lu mën a am ñun buñ ñu dàqoon fii Sénégal lañ jëm mhm. kon jàmmi Sénégal. ñoom bu ñu amee jàmm ñun dañuy am jàmm eh, li koy waral mooy fi mu toll nii ku ne ci ñun boo xoolee sa téléphone muy sonné nga gis si numéro Sénégal sax sa fit day dem parce que lay wóor ne soxla rek lañ lay wax moom néew na ku lay woo di la wax ndax yaa ngi si jàmm kon ñoom seen jàmm mooy suñ jàmm eh, réew ma aussi tamit la fa am man jàpp ma ne diggante ñaari nit war naa tax ñu taal quatorze millions sénégalais wala seize millions sénégalais. Euh, Sonko kilifa la bëgg a doon Adji jàpp ma ne comme fi Sonko toll Adji Sarr àgg na fa. kon nañ wax ak ñëpp ndax jàmm moo gën lépp lu dul jàmm jàmm ko gën man day jàpp naa ne bu Sonko Adji Sarr taxee seize millions sénégalais. seize millions sénégalais yëpp. su Sonkoog aji Sarr taxee ñu taal leen wala ñu yàq lañ fa am lépp jàpp naa ne sénégalais yëpp danañ dugg ci njuumte épargne wuñ kenn nag sénégalais yëpp lañ wax danañ dugg ci njuumte kon ku mën a wax mu rafet nañu wax ku mën a def lu rafet ba jàmm dellu si na ko ñëpp def parce que ñun ñi ne fii kenn muccul ndax lu mu neex neex neex bu ñu toogee fii bu ñu amee dara dañuy ñibbi suñ Sénégal mm. Sénégal bu tàkkee te fii amuñ fi jàmm fan lañ jëm fii gis nga ni mu méttee mm. léegi mënoo dem sa réew fii métti na mënoo dem sa réew ah kon nag suñu réew nag nañ fexe rek yàlla defal ñu fa jàmm waaw mais nag yàlla bëri na sutura moom sénégalais yi moom ah, mën nay métti lool mën nañuy waxante lu ne waaye yaakaaruñ ne dana àgg fenn fa léegi yaa ngi may wax ne politique bi bëggoo ci wax mais en tant que sénégalais. Mm-hmm. troisième mandat bi nga xamante ne tamit à part le le problème de son euh, de Sonko et Adji troisième mandat bi ñu wax ne tamit mën na taal dëkk bi yow loo ci xalaat en tant que euh, président de de de de l'association des sénégalais de Turquie. waaw xam nga man awma droit politique. Mm-hmm. man awma ci droit. mais en tant que sénégalais am nga droit wax sa opinion. non xam nga sénégalais yi nag ba léegi dañ lay mën mënuñ laa mm-hmm. xam nga tàqale moom. sénégalais yi dañoo am problème Pape Matar bi nga xam ne parce que Pape Matar dafa am Pape Matar boo xam ne ka Pape Matar la. Mhm. am Pape Matar boo xam ne dafa jiite ay sénégalais. Mhm. am Pape Matar boo xam ne moom simple la ak njabootam. mais sénégalais yi mënuñ ko tàqale moo tax du ma ci wax. <laughs> parce que boo ci waxee rek ñu dugal la fenn fi wala mu xool fu ko arrangé mu dugal la sénégalais noonu lay doxee. bu fekkoon nag am nañ culture di tàqale. kon mun naa ci wax. mais nag dama jàpp ne ak li ma xam ci sénégalais duñ tàqale. foo waxee rek keneen dana la dugal ci feneen fi ko arrangé te yàlla baax na. noo gisee liggéeyu Sénégal. macha allah am na solo parce que xam nga li ëpp solo ci média mooy disponibilité. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla ko actif nga. ndax lu mu gàtt gàtt moom bi liy xewee nga daw ñëw fi kon jàpp naa ne su ma doon wax ne Sénégal dama koy wax Sénégal c'est le meilleur. parce que aussi tamit ah moom bi fi lii xewee jàpp naa ne moo nekk télé boo xam ne ñëw na fi wax ci lii ak euh, interviewer sénégalais yi laaj leen ci seen xalaat kon kay quand important. kon c'est waa Sénégal la. <laughs> merci beaucoup Pape Matar ñu lay sant di la gërëm di la jaajëfal vraiment jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup.